chers fidèles amis de la télévision Futur Média ainsi que ñi nga xamante ne ñooy waa SSP TV rawatina ñi nga xamante ne nekk ci Facebook live bi yeewu rek ah gis seen weekend eh, yeewu ci eh, joie ci bonne humeur war a jàkkaarloog seen télé xam man su ma yeewoo damay njëkk a taal télé bi balaa may xool lenn sama kër wala lenn sama biir nekk balaa may recherche quoi que ce soit damay sol samay lunettes taal télé bi pour xool lan moo xew lan mooy actualité moo bees donc si vous venez de vous a un début de week-end un très bon début de week-end avec mes petites sœurs waaye sama petite sœur yi toj nañ fi loolu moom xam naa damay xaar tuuti ba ci kanam ma mosal leen ko xaa ma njëkkee ci xaa ma njëkkee ci bingo normalement bingo xaa ma njëkkee ci bingo bingo naka la yaa comme toi en habillé en black ndaxte jëru ngay njool njoolu na moom yàlla mun laa may lépp mun laa may nga mën woy macha allah nga kii xam nga boole kook ay yëf waaw ay rondé def di am mbégte chaque samedi di jàkkaarloog ñoom waaye aussi di jàkkaarloog mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan di wax Samira mm. week-end démarre en force avec les événements avec les artistes et également avec euh, les talentueuses présentatrices de valeur ay Samira <laughs> Samira gars yi <laughs> Samira daal nee nañ gars yi daal nee nañ daal xaw ma Anse Bernard xaw ma ban côté daal moo ma noonu la fa de. moo ma jaaxal samay bàjjen est-ce que dëkkuñu Anse Bernard tonton bi eh, eh, jongo ma tey xaar leen ba ndaxte nuyoo ñu def suñu. hymne ma ne ko ci Mame Ndiaye Savon boo naan. ñu def suñu hymne national noonu la koy waxee. Mame Ndiaye ni koy waxee na ko jongo ma kàddu ngéwél xaw ma lan liw laay bañ waaye. man maam Ndiaye dama ko bëgg moom rek laay toog waaye bu loolu yëpp weesoo bu rakk di euh, pro max xaw ma euh, bingo nuyoo euh, dañuy daal di jox ki nga xamante ne ay bu nee der ngeen kontaan bu sañsee ngeen kontaan bu nee yàbbi naa la ah du ma lekkaat ngeen kontaan moo ko fa am nag mm. ah suñu anti stress nga def sa sa red bu lappax sol say lunette mais ñun ngay napp wala téléspectateurs yi def sa t-shirt uh-huh. après nga ñëw wane say daal yaa je li ngeen def ci basket. parce que weekend start lañ wax. te dañoo soxla free. waaw fën ah, yaa ngi nii fën. waaw laal say mèche. Ah, def say huit ans. Ah. sama bingo d'amour. mu ngi ne macha allah. maa ngi leen di nuyu yëpp sunu ami chers téléspectateurs yi sa safoo seen émission weekend start ak. Mhm. équipe bu fun bu jeune bi macha allah li ngeen di bëgg rek moom lañ leen di chaque semaine. Ah, tey nag ñoo am ay invité yu grandiose. Mhm. ñu indil leen fi ay surprise yu mag a mag a mag xam naa fii ak tuuti buñ ci continuer incha allah di ngeen ci am lu leen leer. ñu mhm. continuer xam ngeen lu neex suñu groupe euh, kii bi euh, weekend start bi. tosang fay yónnee ay élément dégg nga ay waay tonton vie ay waay tonton vie lu tax lii rëcc la xam nga bu doon Pape Samba du ko rëcc xam nga Samba keroog la jóge la jóge fii dem ba ci tànk supaaye yëg nga xool tonton Vieux tonton Vieux hymne bi ma la bëggoon wayal dama la koy wayal ni rek mais des na quoi ayca une deux trois et eh, tonton Vieux tonton Vieux nañ la tono biya namoon nañ la tono biya tono biya tono biya namoon nañ la ndaxte wu jëlo foofu aye yow waaw ñun nag ñun nag xam naa man xam naa bu ñu téléspectateurs yi bàyyiwul bu ñu internautes yi bàyyiwul rek tonton du duñu bàyyee keroog bi fi Pape Samba ñëwee dafa jël benn nga angle ma ne ko yii Pape Samba angle bii nga jël nii gëj naa koo gis tonton Vieux xamal ni ñun dañ laa bëgg comme ni ñu bëggee tonton El Hadj bëgg ko ki nga xamante ni mooy waa wuy lii boo gàttee rek gàtt nga ndeysaan ndeysaan boo gàttee rek gàtt nga Mado Jaw ma sista d'amour yi lay def garaawul doo ko fi njëkkee sama sista Mado Jaw ñun moom xam ne dañoo judd rek xaw a kii xaw a njool tuuti rek ak sax sama rakk ji ah mi ngi noonu waaye tonton vieux sache que xalal ay dóor la rek li ñuy def ni yëpp ay dóor la ñu réalisateur bu ñu gis samedi rek dañ naan yow la waaye duñu fàtte benn yoon ki nga xamante ni yaa ngi dégg lii ci foo maa njëkk a foo topp ci samay rakk mais suñu papa nga xam ne mi ngi fi musul bouger Eva Gomis nga xam ni mooy yaayu Karina musul bouger ah nday astu musul bouger suñu euh, sister Adja Vessel musul bouger Abo musul bouger macha allah équipe bi kenn musu fee bouger réal yi ñooy dem di ñëw rek réal yi ñooy dem di ñëw Jamil yow sax yow Jamil yow may ma tuuti ba ma seetaan li nga xamante ni mooy son Assane Ndiaye Jamil ma doog a dellu si ci yow parce que Jamil da ngaa commencé ceej te xam nga ni waxkat waxkat bu waxee rek wax na ayca léegi tonton Vieux da ñuy may benn euh, son boo Assane Ndiaye Naas Ndiaye loolu dafa neex nañu may loolu ñu ambiance ko waa Raf Pro ñoo ko def lu neex sax Assane Ndiaye nee nga o oh, sama xarit ba waaye o oh, sama rakk yee su ma leen ne demal ñu dem su ma leen ne toogal ñu toog wax dëgg yàlla ñoo ma déggal kay waaye noonu la ñu wawulee ësl waaw di nga wax di nga wax a wax a wax a wax wax ba mat ñu doog a toog kii moom danaan la c'est-à-dire Samy ma xolo waaw li wax dëgg li mais xolo ma ne ko oh, kii moom fa lay nekk naan la waaw def leneen. naan la xoolal loolu loolu laa a ngi noonu rek. acca mi ngi noonu seen émission matinale musicale bi nga xamante ne yéen a ko safoo. ah nga xamante ni macha allah sama rakk yi waaye xam leen ni que Toch nee na mi ngi croisement Cambérène. Toch nee na ah, scooter bi mu jël dañ leen a xam naa nag tey ñàkkul dafa bari moo tax waaye monsieur l'agent bu fekkee yaa ngi ñuy seetaan xaw ma je sais pas I don't bu fekkee da nga nekk di ko seetaan en direct wax ko ñun say jigéen ñi ngi ñaan monsieur l'agent ci njëkk rek pour mu bàyyi la nga mën a ñëw ndax yow xorom nga ci biir cin te dañuy soxla li nga xamante ne mooy actualité mm-hmm. ah ci humoriste ak ci ah? nit jógee na fi jam ñaajo ba ñëwaat mm. non waaye tos moom lu ko neex lay def tos moom xaw ma man te du caatu kër gi de lii ma jaaxal man tos doo caatu kër gi bu xew mu neex ba nga foog yaay caatu kër gi ñi ñoo la gën a nekk xale waa fii la bi fii la fii la de tonton Cheikhou Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax de passage moom ya ñi ngi koy gis euh, moo ki nga xamante ni mooy Mamran euh, tous les 18h de 18h à 19h ci li nga xamante mooy fii la macha allah ma ci gën a la ñuy tegaat xam nga dama bëgg ay théâtre yooyu damay mm-hmm. gis extrait yi ñuy teg mais bu weesoo loolu Mamran waxtaan bi ak way bi macha allah ñu ngi leen di souhaiter aussi li nga xamante ni mooy bonne continuation sur ce euh, kii di Weekend Stars di nos artistes invités qui sont là waaye tonton Vieux rek wala Tata Eva lu fa nekk rek ngeen wax ñu la le ko suñu invité yi euh, daal di rafraîchir tuuti loolu daf ñuy neex aussi waaye bëgg naa aussi ñu bàyyi xel benn affaire dafa am solo man dama koy may dédicace ki nga xamante ne mooy sama yaay ndax mooy sama xarit. Mm. moo ma ëmb 9 mois moo ma jur lu ma metti moo koy yëg lu ma neex moo koy yëg. Mm. Ah, vraiment sama yaay. madame Coulibaly yow laa may son bi mm-hmm. xarit. Mm-hmm. te Viviane may na ko koo xamante ni xewal na ko xew lu rëy loolu koo bañ doo ko defar. Mm-hmm. tonton may ñu loolu buñ dellu see ñu wax ci Zeyna moom xew na. macha allah macha allah Viviane euh, Chidid euh, dafa woy way wu neex sargal ko dippee ko ki nga xamante ni mooy Zeyna waaye damay wax ni que sénégalaises yi sénégalais yi étranger yi na jëpp jàpp way bi def ko sa wayu bopp ni ma jëlee sama yaay dippee ko euh, sargal ko ci way bi ndaxte xam naa bu bu ci bàjjen nekkul tam soriwul. may ak maa ndaxte loolu neex na du pa ay bokk mooy Pape Demba. may ko waaye may ko tamit sama waaj waaw. ah pardon may may sama waaj sama xarit la nag. sa xarit la kay gëstoo <laughs> gis la. foo pikiiroo mu naan fay doon. sa waay la kan la. ah da nga ci def ko <laughs> ay weekend sax la commencé am code. <laughs> code Eva yow jaaxle woo yow. ah man tam e maa ngi koy may kooku I love you so much and you know ah, that I love you so much. yaa waaw sama papa laay waxal nii walaay. ayca waa Facebook yéen aussi eh, bind leen ñu. ngeen wax ñu kan la yow loolu dañ koy lijjanti bàyyi ba clip dugg léegi ñu lijjanti kaa bi. kaa bi dafa bees. bu bees la. Mm, mm. foofu bees foofu ñu lijjanti ko. dama dama koy lijjanti aussi. ay lan ayca ay kër. ay xol la fi def waaye yéen tamit waa Facebook comme je l'ai dit tantôt euh, lâchez des pour vos chéris euh, ñi nga xamante ni bëgg ngeen leen moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk bitim réew xam nga bëgg bitim réew nag dafa xaw a métti mm-hmm, mm-hmm. love distance dafa xaw compliqué mm-hmm, man mosul bokk nag ci li ma bëgg yàlla rek a xam love waaye love love bu distance love bu sori dafa métti daal tonton Vieux xaw ma loolu yow li ci sa ah, la yow tamit nag sama mag ji foog nga waral loolu oh, <laughs> mbëggeel is all mbëggeel is all de uh, Youssou Madjiguène Ndour et de uh, Toumani uh, Diabaté le père de Sidiki Diabaté mm-hmm. nga xam ne ñàkk nañ ko oh, c'est c'est triste nee moom mooy roi li nga xamante ne mooy kora mm-hmm. instrument bu nekk ak ki nga xamante ne moom lañuy ñuy jël identité bi ne li kii li moo tax lii am mm-hmm. ñu xamee ko ci kora te bu kora yeggee fenn yaakaar naa moom moo ko fa indi Euh, mi ngi juddu euh, le 10 août 1965 euh, à Bamako. il a rendu l'âme le 19 juillet 2024 à Bamako à l'âge de 58 ans des suites d'une courte maladie ñu koy ñaanal rek tout simplement yàlla sàmm ko xaare ko aljana firdawsi je viens d'apprendre cette nouvelle et de malheureusement fan yëpp je suis pas connectée sur les réseaux sociaux Euh, ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñaanal vraiment yàlla yërëm ko xaar ko àjjana. et di ko jaale toute la musique sénégalaise ainsi qu'à Youssou Ndour. parce que partagé na ak moom euh, même bu dul woy bi partagé nañ plein de discussions plein de meetings yoo xamante ne tase nañ ci ñoom ñaar euh, ci ay projet yu dul jeex yu dul jeex yu dul jeex li ñuy wax rek dañuy dem rek bàyyi fi projets yi mais projet yi moom du du du jeex ndaxte tu es au courant de cette nouvelle ndeysaan tumaani ja tumaani moom xam nga ko papaay Sidiki mhm. ñëpp. Ah. macha allah. Mhm. parce que légende la woon te moom bu génnee àddina ñëpp lay laal. dëgg la dama tuuti sax bi ma koy yëg léegi nii. sëñ temps yi maa ngi occupé wu ak studio bi. Euh, ñu ngi koy euh, rendre un vibrant hommage hein, raison pour laquelle sax ñu teg euh, li nga xamante ne mooy son bi c'est vrai que c'est en featuring avec Youssou Madjiguène Ndour mais aussi way dafay des comme li may wax ci ki nga xamante ne mooy le parolier Youssou Thione Thione Balago Seck li nga dem mais say image day resté oui je pas voilà c'est la qui a perdu euh, mhm. c'est le monde entier macha allah Toumani Diabaté ku ko déggul ci musique xam nañ ko donc mhm. voilà <clears throat> ñun ñi ngi koy jàll euh, waa Mali waaye ñi ngi koy jàll àddina mhm. parce que euh, même bu ñu miinul sax musique wala miinuñu kora dañ koy gis ci ay événements yu mag ci mel ni ay Bercy aussi tamit day ñëw Sénégal lu bari di def ay featuring ak sunu papa ji donc euh, repose en paix. Mhm. et que Sidiki Diabaté tamit yan bi diis na mais on sait que tu es tu es fort. Mhm. allez vas-y. waaye euh, Sidiki moom c'est un frère xam naa bu ma paree émission incha allah dinaa ko bala may mhm. teguwaat ci yoon bi. pour jaale ko ay ca si toutefois aussi tonton vieux baal ñu ci euh, low bi de euh, ñu ngi ko doon doog a yëg moo tax après mu mu touché ñu tuuti mais su fekkee aussi am nga son gis teg mm, ñu daal di koy déglu daal di dalal ñi nga xamante ne ñooy suñu ci biir Week-end Stars loo bëgg bëgg naa te loo bëggul bëgg ma fo jëm fa jëm te fo dëkkul dëkku ma fa bul ma di ba sori loolu gën ci man def la story ku dugg xam ne man ci yow mbëggeel bu dëggu seetaan wax ma lu ci man dum la mës a tombé boo fi nekkul bee damay lonle Falling too low with my baby Falling low, we gonna fly high, baby Baby, j'ai la doté, te du mal la gână noapte, cu numul nu se trompe yeah. la doté, te du mal o foi Yeah Eu la gână noapte, cu numul nu se m خلقو فن منی یولا خونه nga one mat ja you need man la Ready to spend my whole life with you yola Alle bide mom lai no ye Ye wachi wai nyu mai mako Nekete da mako nop yen Defa look out you nel guro Ma don so wife sometime ma don so bad Yal take arsenal go digi dil la jomal I know you bad xam nga ni ma la yëngal Doko defat fo juma fekk la fa baby dum la mës a trompé ba lay foowee boo fi nekkul bee damay lonely falling true love with my baby falling in love we gonna fly high baby baby je te te du ma la foowee yeah yow la gën a kon dum la mës a Zako tibi fees ak miel dañ visé septième ciel si sama xol gonna fly Jox la four four teg ci x la real love dund best life Alright, you my life Dum la mos a trompé ba lay

Merci à la team euh, Gistec euh, sur cette très belle chanson. Bon, vous allez, tenir compagnie à mes sœurs. L'un vient ici, l'autre se met euh, à côté de Choupa. Et bienvenue dans votre émission Weekend Start. J'imagine c'est votre première fois. Bonjour à vous d'abord. Bonjour. Vous allez bien? Vous pouvez parler sur ce micro-là, sur la table. Vous allez bien? C'est comment le nom? Doumali. Doumali. C'est votre première fois? Euh, sur Weekend Stars. et euh, on de saluer les téléspectateurs. ñoo ngi nuyu ñëpp ah. di mm-hmm. nuyu Sénégal di nuyu Dakar di nuyu Géejawaay. Mm-hmm. di leen wax ni man la duumaar la from gis teg teekaayal gang represent yee yee yee te du fa live déjà kontaan nañ si invitation bi tamit mm-hmm. et plaisir la bokk ak plateau bi jaajëf plaisir partagé alors euh, sa Ink Jazz from Gistec. naka. Ink Jazz. Ink Jazz. Ink Ink. Ink Jazz e yi lan ko may numéro métti. yow du. du Marley. du Marley. du Marley. Ink Jazz Ink Jazz. la moo Ink. pourquoi le mot Ink. Ink déjà ça signifie encre en anglais. encre encre encre oui. ok ok. te encre fu mu passé tamit dina fa deñ wala. léegi lu fa jazz bi di wër. sama diminutif tour la. Ah, ok yéen am inspiration la macha allah. c'est simple pourtant. très simple ah, on n'avait pas compris parce allah. xam naa inkigaas beeg duumaarle bi moo tax Samira di leen làkki tubaab parce xam naa daa yaakaar ne leen sa ay. non dama fi sax nekkul woon barke yàlla may làkk tubaab ne ma fi woon de. la yow tamit nga nuyu téléspectateurs yi lay seetaan. yooyu inkigaas fu mu gis rek avant tout di leen nuyu yéen ñuy def invitation bi kontaan nañ ci trop. Mm-hmm. gis teg la benn groupe buy évolué bu nekk géejawaay mm-hmm. di bëggee ñëpp ñuy seetaan émission bi na dem ñu dem ci kanam mm-hmm. ayca nice des jeunes ñaari jeunes yoo xamante ne euh, son bi dama ko déglu ma ne waaw c'est c'est nice ah déjà seen seen entente yéen ñaar fusion bi ni mu demee collaboration bi ngeen génnee benn titre yow la yow la bi nag xam naa Choupa wala Ndaxte wala Samira waaye nag mën na nekk ku nekk ku ñuy seetaan pourquoi le titre euh, de yow la ak euh, de quoi ça bi waaw déjà son bi récemment dañ génne album bu tudd Another Step Another Another Step mooy un autre pas mm-hmm. njëkkoon nañ def suñu premier album mu tuddoon Tedd for Life parce que ci banlieue lañ juddoo ci banlieue lañ yaroo c'est très important tout le temps ñuy rappeler jeunes que c'est possible quoi. tedd mun na nekk quoi moo tax ñu defoon projet bu njëkk bi tuddee ko Tedd for Life. Mm-hmm. donc ñu nekk ci même lancé bi deuxième album bi ñu tuddee ko Another Step mooy un autre pas. Mm-hmm. wax leen tout le temps ñu ngi ci yoon boobu bi quoi. donc euh, yow la si album boobu la bokk. mu nekk son wu loof déjà album bi def nañ ci son ak 1814 am na clip. macha clip bu tudd ko yàlla samp ñu sampale ko ak benn son Wally Seck. Mhm. Euh, def nañ ci euh, son également ak BM Jaay c'est un artiste rappeur. Mhm, dëkk Yoff déjà mu ngi waajal concert le 26 au Grand Théâtre mhm. bëgg naa gars yëpp ñëw support ko parce que aussi c'est jeune boo xam ne gën na boppam. léegi yow bi ñu def clip ak 1814 def clip ak. de ça suñ benn grand la ak BNB ñu ne pourquoi pas ñu def benn affaire boo xam ne day xaw a low aussi. Mhm. des fois c' est bien de de rapper tout le temps mais des aussi c' bien nga jox yeneen gars lu ñu soxla quoi côté love jox leen lu soft. Mhm. looloo tax ñu choisir yow la bi comme titre comme nit ku nekk rek ki nga bëgg. ki nga bëgg moom ngay fal. koo fal tout le temps da ko naan yaw la donc sonwu loof la wax ci lu neex ak ki nga nekkal du tout le temps sonwu loof dafa war a métti mais bi sonwu loof la boo xam ne yee yee bi sonwu loof la boo xam ne gis nga gis nga noonu la demee nag donc euh, loolu mooy mm. carrière musicale je dirais vers 2015 2016 2015 2016 d'accord si lañ defaguñ ngeen album wala nañ benn mixtape. ok génne nañ benn album aussi. album récemment comme ni nga ni mu ko doon waxee léegi léegi. Another Step. Another Step Another Step waaye. aussi def nañ EP. EP e de quatre je sais pas cinq titres yu doon wax si injustice bi amoon si réew bi jamono ah. suñu président bu njëkk bi. léegi tey jii comme pour téléspectateur yi ah. parce mhm. fois da ciy baax ñu xamaale un peu musique. Mhm. tey jii boo nee e ñu ne album. c'est quoi la différence entre EP ak album. ak déjà dafa déjà dafa am EP am am mixtape am album. Mm-hmm. comprendre nga ñun ñun ñun artistes rappeurs yi loolu la ñu xam EP mixtape ak album. EP e mooy projet boo xam ne de cinq à de euh, de cinq à à cinq titres je pense bien. du bëri quoi du bëri. Mm. Euh, mixtape déjà même bu fekkee rappeurs yi nekkatuñ di respecter norme mixtape mixtape mooy projet boo xam ne da ngay liggéeyee DJ son yëpp. Mm-hmm. maanaam son yëpp da nga siy liggéey DJ mu xoos yi dafay scratch album nag ku ne xam na luy album bu mbalax man ak bu rappeur mooy am. album album la quoi loolu mooy loolu mooy loolu mooy différence bi quoi. Mm-hmm. alors Inca Jazz moi une question qui me trotte depuis. mooy que dama gis léegi les rappeurs en général ñu ngi commencer tirer un peu vers vers euh, suñu instrument yi nga xamante ne mooy su suñu suñu ay ressources li nga xamante ne ñun moom lañu moom en général damay gis ay samba yi di gis ñu bëri ñoo xamante ne instant bi ñu ngi tiré ci li nga xamante ne mooy bu ngeen gisee loolu ça fait partie de vos projets ou bien ak naka ngeen ko filé aussi fil lañ ko accepté nañ ko mhm. te ñu ko respecté bu baax a baax mhm. pour man ñu musique je dirais su ñu rap mhm. xawoon na manqué genre affaire boobu quoi parce que suñu rap des na am identité. Mm-hmm. te loolu moo mën a apporter identité bi quoi. Mm-hmm. déjà peut-être rapport yi mënoon am na rapport yu bëri jël nañ mbalax bi am fu ko classé. Mm-hmm. mais mbalax suñu instrument la quoi tamo bi ngay fii lañ ko defee. gis gis nga gis nga euh, Baba Ndiaye. waaw nga ko blende ni mu def ak Ndeye Diouf. loolu loolu suñu instrument la ñun ñoo ko moom quoi. ñun ñoo ko mën a valoriser te nit ci loolu la ñu mën a ràññee quoi. absolument tey ji loolu bu ñu ko jëlee boole ko suñu musique. avancement rek la mën a nekk ak différence parce que différence mooy jaar ci milieu bi ñu nekk. Sénégal tey jii rab mënoo identité bii la am. Mhm. te loolu moo ko ci war a mën a def. pas la peine de diaboliser lii wala lii wala lii wala lii musique la quoi. Mhm. na neex consommable. Diallo et puis musique amul frontière. musique amul frontière. Mhm. Samira ma gis ñoom seen clip bi mu nice lool lool lool mën nañ xam kan moo jaar ci réalisation bi. ak kañ ngeen ko tourné ba xam def ngeen deux jours de tournage trois jours parce que dégg naa nag tournage dafa métti ndax keroog ba muy tourné xaw naa dee mhm. Mhm. c'est clair yombu na mhm. déjà moyens yu muy laaj surtout say jeunes yu dëkk si banlieue bi di ko lijjanti c'est pas c'est pas c'est pas facile quoi buñ la ko waxee tamit peut-être ay jàmbaar lañ rek moo tax ñu la koy wax mais c'est pas facile déjà album bi def nañ si ay ay quatre clips quatre clips yëpp dafa laaj xaalis bu bëri mais aussi bud waaye bu benn clip bi rek da ngay yuuxu après comprendre nga mais ñu ñoo ñu ñoo choisir def métier bi mënoon nañ yeggali suñu jàng peut-être après toog si bureau yi wala liggéey feneen di xaar salaire mais ñun ñoo choisir métier bi mhm. ñu liggéey si ak DX directeur c'est un ah. gars bu dëkk Géejawaay mhm, dama koy dégg gars bu am talent bu mën lu ñuy mhm. def trop trop trop trop liggéey nag artistes yu mag yu bëree bëree bëri ñu nag ñoom ñu nag moom ñooy liggéey depuis lors te dara ñaawul quoi ñu ngi ñu ngi liggéey DX directeur moo def réalisation bu nice bi c'est très joli très joli très très très belle vidéo merci beaucoup ah donc scénario euh, bi tamit c'est impec oui dama dañ leen ciy souhaité li nga xamante ne mooy bon vent bon courage c'est pas facile ah nekk ci game déjà mm-hmm. euh, parce que xam ngeen ni que concurrence bi elle est vraiment rude mais dañ leen di euh, wax aussi euh, ndax yéen a ngi ay concert wala foo xamante ni seen fans yi mën nañ leen fa fekk et aussi nous parler de votre projet à venir waaw comme ñu ngi ci ay liggéey mm-hmm. am na ay quelques événements ñuy waajal ci vacances yi mm-hmm. concrétiser wuñu date yi carrément mais am na ay date yu ñu visé nii nii ñu ngi ciy liggéey su ngeen ko paree rek da ngeen di yónnee affiche bi nañ communiqué lépp mu jàll. mu jot nañ mhm. bu naay. jot nañ fa def tamit ay rencontre ak ay partenaires. Eh mm. aussi ñu fay liggéey benn label bu tudd My Globe mooy gérer lépp lu jëm si suñu wàllum production maintenant. d'accord et di ñaan mu gën a avancé quoi. non day gën a avancé sinon projet mi ngi fi lépp a ngi lépp ngi fi projet yi mooy euh, moom nee naa leen dafa jéggi frontière amul limite. donc dem leen ci mais bu leen fàtte aussi euh, li nga xamante ni moom laa leen wax mooy suñu identité bëgg naa ko gis pourquoi pas ci album bi mm-hmm. waaj a ñëw wala ci projet bi nga xamante ni dañ koy waaj a am ngeen xam ne fii seen kër la rek bu ngeen fi ñëwee rek Euh, xam nañ ne que ça soit vos affiches euh, seen conseils yi ngeen di waaj a def tout ça bu ngeen ko yónnee soxna Choupa rek. Mhm. dinañ leen ko jàllale. d' accord vous laisse le soin juste de remercier euh, le staff peut-être. waaw waaw déjà ak waa mhm. déjà déjà dañuy remercier ñaari gars yi ñu àndal suñu manager Yaya ak Gora moom moo géré lépp luy organisation. côté Distec ci événement yëpp. gars yi ñëwul Baba Nix Balisto ku ma fàtte gars yi maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp. Mhm. di bëggee sama yaayaan. jàmbaar la jàmbaar bu mag a mag la bëgguma wax si moom lu bari sax si moom moom la xam jàmbaar la mi ngi ci kaw di ko xësal ñu koy wax ni gis nañ lépp mhm. di ñaan yàlla yàlla gaaw changé lépp quoi mu ñëw noppal ñu ngi bëggee sama grand frère Badou di bëggee Momo bi dégg su képp ku jàpp ci suñu production mhm. ñu ngi lay bëggee quoi di leen wax ni gars yi rendez bi le 26 juillet le grand théâtre ñëw leen support BMJ mhm. Lébu Ndoy Aïcha euh, Ink Diaz remercier ñëpp ah daanaka ñun. waaw ñun waaye ñun ñu remercier ñun. a ngi. ñu ngi ñëw remercier leen lu <laughs> moom presque ñu mu remercier ñoom xaat bi ñëpp laay remercier quoi. ndeysaan la. yàlla na yàlla lafal cat. mooy Diomaye may Sonko. ndeysaan ñoo bokk nekk sax ñu muy bëgg laay bëggee ñun tudd ñëpp samay nit lañ ko ñoo bokk ñu ñuy àndal. di bëggee sa mère. ñëpp kay jàmbaar la bi nga waxee sa mère nga wax sama mère quoi. loolu la seen ànd bi yàlla bu ko dara yàq yàlla bu ko dara yàq macha allah c'est beau et puis vous êtes lii rek moo leen di euh, lii mooy tax ngeen dem kanam booloo euh, ba focus ci li nga xamante ne mooy seen objectif bañ a déglu les on dit lii rek la moi j'adore déjà ce que je vois mm. on vous souhaite tout simplement bon courage sur ce aussi am nañ benn invité boo xamante ni ndeysaan on dit tout à l'heure ci backstage bi une femme très très très très intéressante elle se nomme tout simplement Aïta Senghor moom dafa ne nañ dellu Saraba tonton Vieux su baaxee ñu dellu Saraba dellu si waat Njamo Saraba Njaxeen Saraba ah macha allah euh, waaw bienvenue Aïta Senghor euh, Borom Saraba macha allah c'est un plaisir ñu dalal la ci li nga xamante ne mooy plateau Weekend Stars ñun ñëpp la team te souhaite euh, te dit bonjour di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi lay seetaan mën nga jël mën nga bàyyi micro boobu nga jël micro bi si bi s'il te plaît merci. waa Sénégal. Mhm. maa ngi nuyu et di nuyu aussi waa plateau bi di nuyu nañ la macha allah jongama yu taaru yi fi nekk. <laughs> di nuyu sama frère Toch maa ngi nuyu Sénégal. di ñaanal sama yaay yal na fi yàgg ci allahumma amiin. di nuyu Mbour. nga. waa Mbour laa ah tey am nañ gan nag waaw mu tey am nañ gan bu jógee ba Mbour macha allah. ay ayca moom la ñuy dalal waaye laata boobu aussi les retardataires ont toujours tort certes. mais ils doivent dire bonjour aux téléspectateurs donc bonjour à toi Mr Toshdi. toor nga ma ma laal. waaw mais waxal naa la gars yi li la li la téye. waaw sama t-shirt bi. daa dem pressing xoolal. billaay daa dem précis. Euh, salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum euh, àdduna. jàppee ko nii bu baax a baax ginnaaw bi ñu yàlla dimbalee ba ñu teew tey. ci émission bi ndax euh, mënoon na ñàkk. Mhm. ndax Samira. Mhm. am naa lu ma métti de. Mhm. Samira nañ bàyyi càq-càq yi ñu liggéey. wallaahi quand même. wallaahi booy sonn nañ de. biñ laay wallaay booy sonn nañ. te dañuy daan seen doole. fekk xam nga oto buñ la jàppee. tey jii nekkoo en règle mhm. dinañ la bindal loo xamante ne tey jii di nga ko mën a mhm. boo jàllee ci feneen dinañ la jox attestation wala mhm. affaire yoon mais booy dañ leen di jàpp fii ñu fay ñu avancé feneen ñu jàppaat leen ñu fay. mais nekk en règle rek gënul. bëgg la ñu nekk en règle du dëgg la mais booy nee nañ parfois dañuy am seen assurance am leneen leneen ñu laaj leen permis. ah waaw c'est évident. xam nga dañoo war a yor permis te permis mu permis moto amul permis oto nga mën a am. nga yoree oto boo yoree permis oto mën ngaa dawal. mooy da mën nga dawal moto. te booy bu fekkee permis A la voilà te yegg ci permis oto wala loolu nekkagul seen xel xam loolu instant day métti ñoom dañ leen baal permis yi booy yéen tamit dee leen wut casque mhm. mais mhm. permis lañ koy jàppee ñaar yëpp ay waay kooku jàppee dina ko wut mhm. waaye ngir yàlla dawaleen booy yërmande dañuy daan seen doole booy xale lañ journée buñ la ci jàppee lu tolloog 10 000 francs looy versé looy versé. wallaay loolu mooy li ma métti ah, est doo ko bàyyi bu potox ba daaneel rek ba nuyoo après nga jël supa. barke alxuraan pourtant dama am lu ma métti pourtant dama sérieux nii. waaw da nga kay mais boole ci sérieux boobu nuyoo waale rek après euh, supa potox lu. naa leen di leen wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah à mhm. la TFM nuyu le monde entier. Mhm. di kontaan bu baax baax ci suñu invité bi suñu système bi ñu ngi koy fay bu baax. Mhm. waa Mbour di ko wax jaa jeex na jeex na loolu moom dinañ ko xamal li fi xew sax balaa muy dem comme ça mu xam ne ñun aussi euh, dinañ ñëw mbuur mhm. euh, foog ngeen dalal ñu nag comme niñ ñu mbuur j'espère que dalal bi jaar na yoon mbuur daa mën eh. gan dalal ngeen ma bu baax ndeysaan mbuur dañoo mën gan ndeysaan xaar leen lépp nag hmm? xam ngeen waa mbuur ba bu baax sëru ba yaa ngi leen di xaar hmm? ñëpp a ngi leen di xaar surtout waa Saly boo leen ñëwee boo leen dawul ñun duñu daw ah tagg sa yaram dafa ñëw indaale benn style am. ñëw nekk artiste ñëw indi style am muy rafet. nekk waa africain la loolu ci gën a neex exactement lox yi takk ko. Mm-hmm. c'est vraiment original. te dafay dafay wane xanaa gisoo yëre ba africaine baobab ba mu ñëw ci baobab. feuilles yi laal vax laal mm-hmm. vax. ah macha allah ah tonton Vieux li nga def nii est-ce que waa Mbour dinañ. léegi waa Mbour dañuy gën a teral. exactement lenn rek daal moom moo ñu ci gën a kii mooy mm-hmm. pour euh, xam exactement. Euh, depuis kañ la carrière bi débuté. ndax bi mooy première chanson wala am na yeneen ci mhm. mhm. vraiment li ngeen li ngeen li ngeen euh, ba ma tàmbali yàgg na. Mhm. yàgg na ci théâtre la jaar commencé ba pare di def taalif yu bëri tey ñu ma xam ci taalif lañ ma xamee. taalif d'accord waaw taalif lañ ma xamee daanaka sax euh, suñu kilifa bu mag bi nga xam ne tey jii moo def lu rëy li ci Sénégal mu Youssou Ndour jigéen sax xam taalifal nga ko en 2012 waaw. ndeysaan waaw ay yow yaay yaa koy dalal. donc euh, mu nekkoon lu am solo. Euh, ñëpp xam ma ci taalif nag ma ne noonu. Ah, ah, mënta ñàkk ah ndax loolu. loolu mënta ñàkk. donc fa la tàmbalee nekk après taalif bi nag ma inspiré ma ne pourquoi pas ma jàngi guitare. Mhm. parce que xam nga lépp benn la boo waxee aar nag dafa lu bëri. man sama question la noonu ma ut guitare mhm. pour di mën a sama bopp. parce que yenn saa yi may taalif teg kooraa yenn saa ma ne non man euh, guitare loxo moo koy def. ak mhm. yàlla may na mais kon naa jàng guitare. Mhm. accompagner sama bopp. jàng guitare bi nag su mu gënoon a euh, yombee ak su mu gën a mën a gaawee. Mhm. mooy ma des chansons. ma jël benn ma jël sama guitare joué Taaja Boom sama guitare joué Massamba Thioune Anta. ah oui pour jàng jànga jàngaale accords yi. bu ko mhm. bu nekk da ngay xam lan moo ciy majeur yi lan moo ciy mineur yi. foofu laa jàngee. sama xel dem na ci ñamari Faajees. waaw sol ay ñoom sol ñoom laa. xam nga Seydou. waaw foofu laa jàngee mhm. di dem nag ci hôtel yi di pratiquer. di xam nit ñi di may nan ñuy nan la ñuy da nga doon dem ci hôtel yi di def face publique bi. bu gën a métti yow lu doon def. waaw mhm. waaw damay def laaj ba wax dëgg fa yàlla macha allah yàlla nangul na ma. Mhm. te nit ñi tamit nangul nañ ma ko. waaw bëgg nañ ma dañuy bëgg sax di di di jouer daanaka eh, saison bu tijjee ñun ñu ah, am na noonu. da nga bëgg gaabul tàmbalee. Mhm. foofu laa tàmbalee ba egsi fii. donc album nag moom. defaguma ko. Mhm. mais def naa ay featuring def naa ay chanson mais xam nga fekkente ne euh, des na rek wala defagoo benn clip bu bu ñëpp di teg. absolument nga xam. hôtel yi aussi yi moo tax. Mhm. mais def naa ay featuring ak Afadi. def naa featuring ak benn euh, euh, bu tudd Watuzi. ndax daanaka tey. sama chanson mi ngi daw benn chanson reggae bu ma tudd Africa Imbokator. mooy africain booloo. en ah, reggae mu ngi daw tey jii Jamaïque. ah oui ah, macha allah ndax même ci sa son bii nii nga doon kii maa ngi ciy dégg yeneen yeneen law. exactement séeréer la ak aussi euh, variété bi donc euh, moom a tax ma gën a dem gëstu yeneen langues yi. Hmm. waaw comme. Euh, espagnol bi anglais bi en tout français aussi. ah yow habla espagnol. <laughs> poco poco. poco poco donc. di di di aussi euh, tout ce qui est nag euh, suñu langue africain yi ak suñu chanson africain yi aussi mën valoriser ko parce que ñun loolu la ñu am. surtout raison pour laquelle nga indi ci table bi nga xamante ni mooy Saraba delluwaat Saraba cest euh, voyage bi nga def yëpp expérience bi nga am yëpp tey nga ne xaaral ma jël Saraba def ko en en en âge. retour au béykat illustration yi macha allah pourquoi le choix de Saraba ak lan moo tax nga ne Saraba moo def tey tey. waaw Saraba dafa nekk loo xam ne dama ko yàggoon bind. Mm-hmm. ma xam ne nag euh, c'est moment parce que tey Sénégal fu mu toll nii. ñun dafa am loo xam ne ñun dañ koo moom am loo xam ne moomuñu ko. buñ ko jéemee roy sax niñ koy defee du neex. Mm-hmm. ndaxte nee nañu roy du niru pire. kon nag ñun bu ñu bëggee roy ay yenn jikko yoo xam ne rafetul. Mm-hmm. di di génn di sosal nit ñi di génn di waxal nit lu ñaaw. man lay waxal man te te vraiment man lay gaaruwaale yar ci sutura yar ci kersa. man lay gaaruwaale yar ñu jox euh, ay ay ay. ay bu ma def yu am maanaa. suñu suñu suñu maam yi ñu fi def kon ñun duñ ko yàq. waaw ko yàq nañ euh, leen tos bul jooy. boo boo waxee jaxase nit ñi ni man ngay gaaruwaale. sa bëggee waxoon noonu. <laughs> alors am am solo euh, tey Saara Ba jot. parce que li fi amoon euh, kenn ku ne xam ne Sénégal temps yi li fi am. ak aussi avant ñuy dem ci élection yi ak ak élection yi ma ne nag nañ leen dellu Saara Ba. Hmm. parce que ñun juddoo ba tey ñu ngi dégg ay ñu dem Saara Ba. ma ne jot na nag tey. egg saaraba egg saaraba mooy dëkk ci jàmm dëkk ci mbégte dëkk ci suturaalante dëkk ci yërmande. dëgg la bëggante aussi. parce que xoolal euh, Samira yow ni nga mel ak euh, ndaxte ni mel donc mënuma ko mel. Mm. ku nekk am na sa bés ak sa heure bu juddu ak sa melokaan ak yàlla lu mu bind sa livre. même bu ñu bëri bëri ku nekk am na livre am. donc kon dañu war a nangulante. Mm-hmm. jéggalante ba pare bëggante. waaw waaw ñu ngi egg saa la macha allah résumé na li nga xamante ne exactement euh, ñu mm. ay partenaires suñu ay collègues suñu le résumé de la vie. Mhm. donc aussi Aïta euh, mhm. suñu a xam aussi wala je sais euh, waaw euh, si si Aïta gis nañu clip bu nice na Ziz Art moo fi jaar. parce que mhm. xam naa ay marques moom seen naa ko moo fi jaar. <laughs> mais clip bu nice nice loolu mën nañu xam fan lañ ko tourné ak ku la jox inspiration baobab parce que gis naa sax sa yére dafa am baobab dafa mel ni loolu dafa bokk sa symbole. waaw guy dafa bokk say xamba. wala <laughs> te mystique la wala. ak ak ak aussi yére bi aussi. xam nga ku ne ku ne ku ne ku ne euh, séeréer. li guy. parce que séeréer dafay jël guy guy bi. Mm-hmm. wuti ci xob yi def ko laalo. dëgg la ah. ku ne laalo ne cere. kon yaakaar naa euh, man dama ci bokk. Mm. dama ci juddu ba pare dama am chance juddoo Sénégal. parce que juddoo Sénégal am chance la de. dëgg la de li nga wax ni may xam dara nekkul ku nekk juddu Sénégal. nekkul ku nekk fii bokk. kon ñun bu la fi yàlla boolee na nga xam ne. lu beneen la juddoo beneen la mérite mérite la. kii beneen la juddoo béninois juddoo moom beneen de. beneen nga juddoo waaye Sénégal tamit. mu am suñu suñu symbole mooy baobab. dëgg la donc euh, clip bi daanaka mën naa ne Ziz Art. Mhm. moo xalaatee nii. Ah. scénario kàngam la wax wax ci sa baaxuwaay lu wàññi sa baaxuwaay déedéet aar la yàlla may inspiration bi lii mu ngi nekk suñu wet mu ngi nekk sali mais man xamuma ko woon xëy na ma ko waxoon sax ni ma ko gisee moom ni mu ko gisee kon clip bi sali la moom moom mu ngi Dakar mais gis na fan laa war a defee clip bi donc nag alga nag ku ne xam na ko alga nag moom moom moo détecté loolu nag yëpp nag ànd ak gis aar ñu ñoo def liggéey bu rafet bi kon maa ngi di jaajëfal nice na loolu ku ku ndeysaan alga mu ngi sa ginnaaw boo mhm. gëstoo da ngay gis alga nga xam ne lii man parfois su artiste taxawee fii su ma gëstoo gis ne alga moo taxaw si ginnaaw sama xel day dal mhm. ah, mi ngi ci ginnaaw Rema Diop mi ngi ci ginnaaw ki fi ñëwoon la dernière fois ah, léegi xaw ma naan ko ndax surtout si digg dafa ñëpp ñoo man mu ngi woon sama ginnaaw mais léegi dafa lekk sama xaalis daw mm. yow xam naa Tata war nañ ko war nañ ko war nañ ko invité fii nag. léegi léegi day way. lan la wax Abi Ndour yoroon naa ko 12500 moo ma tere dem Abis Garden ba léegi. Tata Ngoné na. faqal natt loolu yëpp da koy def. te léegi day way Tata Ngoné day way gis nga vidéo yi. way waaw dinañ ko invité weekend Sarr loolu mënut a ñàkk. <laughs> Aïta dama lay bàyyi nga wax ci li nga xamante ne mooy African Queen bi. Mhm. Euh, ñu waxtaan ci aussi parce que am na ko ci ngoon tonton Vieux may ñu ñu xoolaat ko léegi dellu si waat merci beaucoup tonton vieux euh, ci son bi nga xamante ne dañ ko bëggoon di xoolaat di xoolaat waaye aussi euh, sachez que euh, tonton vieux sachez que Aïta Senghor aussi bokk na ci li nga xamante ni mooy. Euh, African Queen bi nga xamante ni day am ce soir gis naa keroog aussi ñoom PNJ euh, ci PNJ show invité euh, deux femmes yoo xamante ni macha allah dañuy bokk ci loolu mm. mais on a le plaisir aussi d'avoir cette dame de valeur mu war a bokk ci li nga xamante ni mooy African Queen alors comment ça va se dérouler l'événement Aïda appel un appel à tout le mm-hmm. monde. à mm-hmm. tout le monde hein. Mm-hmm. parce que c'est un festival panafricain c'est un festival qui parle de nous de nos racines de nos cultures. soo leen ñu mënee may affiche bi ci ginnaaw s'il vous plaît. waa Régie. Euh, African Queen. donc euh, dafa ñëw daal pour euh, wone jaay gën a suqali. gën a valoriser suñu culture africaine yi ñu am. Mhm. waaw donc euh, ma ma ciy woo ñëpp nag tey. Mhm. parce que ku fa ñëw di nga gis Aïta sur scène. Ah. Ah. di nga ma gis ma joué la lépp. di nga gis euh, Aïta le mu nga sama sama. live la am orchestre bu euh, sama sama band mu ngi tudd Moringa. Moringa mooy ko fi ñu fi Moringa. Moringa mooy. nebedaay nebedaay waa nga mën mën a togg def ci cere. ak ah, ay ay garab. ba pare nga def ko jus day neex. Ah, ay tax waaw ba pare. jus wu day infusion ah nga def ko infusion quoi dañ koy def jus. super di ko naan nga nga dara di la métti nga def infusion naan mu jëriñ la. donc c' est pour dire que moringa. never day donc du dee. moringa euh, moom laa jël comme comme sama turu groupe. que may def tamit du dee. nañ ko nañ ko nañ ko nangoo noonu et ngoon dina doy waa si vous me le permettez Samira. bien sûr macha allah. waa artiste waay ok. xam ne nu mu tudd. macha allah. laay laay donc lii mooy Amonika. aywa mën nga bàyyi ma laaj sama élève yi dina harmonica kan moo ne flûte kii nee na flûte donc c'est magnifique en plus de la guitare dinañ gis la Aïta dafa yor harmonica et on verra d'autres choses aussi machallah est-ce que mën nañoo xaar Aïta mu bokk tama tey eh. parce que man loo defati dootuma jaaxal. mais na nga ko xaar. léegi loo defati dootuma jaaxal. dañ ko gis da ngay euh, day guitare mu ngi yor li lu mu tudd. harmonica. harmonica. ah tey jii nii buñ la gisoon nga bokk tama duñ jaaxal. mais di ko gis daal di Assane Thiam. ak lépp parce que ñun loolu lañu am. Hmm. te aar. Ah, artiste boo ko waxee jeexal na lépp. dëgg la ñun yàlla ñun dañu am dañu am lépp am na ñu am nañu tous les permissions pour faire ce qu'on veut. dëgg la bi mm. ñuy fecc nii. macha allah mu ngoog waaw mu ngoog euh, yàlla daf ñu may lu lu lépp. Mm. ci Sénégal. dafa dafa nice. waaw lépp dafa kawe. dëkk bu nice lañ yor am nañ lépp mais neex lañ doyal ci euh, ay Tassegor parce que mhm. parce que toog nañ ci backstage bi pendant plus de 30 minutes maa moom ñuy waxtaan. Euh, sachez que jox na leen rendez-vous ci li nga xamante ni mooy euh, moom li mu doon. moom mooy festival international African Queens bi après dinaa dinaa jàllale léegi affiche bi ci kanam parce que prévente yi ci 5000 francs 10 000 francs après

naa tamit ce soir dinañ am ay surprise que muy yow que muy euh, ñeneen daanaa lañu fa nekk bu baax a baax euh, waxtaan bi neex na mais xam nga ni taw bi moo ñu xaw a xot suñu hmm. sañoon dañ lay jël fii ba 13h ñu waxtaanee ko parce que machallah li may wax euh, artiste bu pétri de talent nga machallah on te souhaite bon succès ak li nga xamante ni mooy bonne continuation ci li ngay aspirer ñu bàyyi la tout simplement nga wax sa mot de la fin ah, maa ngi tàgg waa Mbour di leen wax yéen merci beaucoup. et di leen wax ne teraangay maam yéen a ko sàmm. ndeysaan moo tax du leen ba suux ci kàmb. ndeysaan yal na leen yàlla bu dolli ay ndam. lii mooy lan te dellu naa a aar ci ku leen di bëgg a jàmm. Mm. amiin mm. béy ngeen seen waat ci seen toolu maam. di mm. jikkoy sell yi ci lanu ko sàmm. wàccu leen gëlëm dem di war mbaam. te ku leen mënta woo ngeen di wuyoo naam. Mm. sargal ak ndokkeel yéen a ko yeyoo ah ngir seen melokaan nii ngeen sosoo mm. Youssou Ndour mm. bul xool noonu bul ko yittewoo ndax ni ngeen wuutee noonu nga leen jiitoo waa Mbour waa Sénégal maa ngi leen di jox rendez-vous ce Grand Théâtre ek sama yaay yal na fi yàgg tëw amiin mais bëggoon nañu nag nga joxe sa numéro buñ la mën a jotee balaa ngaa dem pour képp ku la bëgg parce que tey jii li mu def nii am na artiste yu bëri ba man nii ku bëggoon bind son mm-hmm. son richesse su parole. Hmm. dafa dafa am importance. Hmm, hmm. tey jii ku bëggoon nga bindal ko. nga bindal ko kon joxe numéro bi. artiste yi yéen ñi seetaan sa numéro. sa numéro manager wala sa numéro man dama koy jëlaale. bu demee ci clip bi. mu ci suuf. waaw ku ci tapé Aïta Senghor Saraba YouTube. di nga gis sama numéro ménager ci suuf si amul benn problème yëpp a ngi fi information yëpp a ngi fi ça yow ndax ah, ñu Instagram maa ngi fépp au la gën a kontaan ñoo avec nous bu ko defee ñu daal di xool ki nga xamante ne aussi wala ñi nga xamante ne ñooy si Salisto ak Cukel ñoom mooy nañ li nga xamante ne mooy tukki ak lan tukki fa dëkk neexee ñu daal di xool ñoom fan lañ tukki ñu dellu si waat Toch ma daal lay tontu euh, si Salisto ak Cukel dama nam sama jëkkër si dëgg la yaa yeey waaye gis na dara dafa uti pour ñëw teral la naa danga ko si ñëwee rek nga kontaan de <laughs> ko filmé dérange pas ah. on fait, on, fait, on fait comme vous voulez. Parce que sachez que c'est chez vous. Euh, Ndeye Salon bu euh, Simon si fashion hair. Ndeye maa ngi gis appel waaye mënu ma la jël yow boo paree rek voilà maa euh, lay balancer léegi numéro Khadim bu ko defee nga jox ko affaire bi mu daal di tout de suite. On rappelle aussi euh, que ci kanam euh, disons dimanche incha allah. dinañ euh, dem fi nga xamante ne mooy euh, plage Obama bu Mbour. ak euh, l'équipe de Sen Petit Gallé. Mm-hmm. l'équipe de Prince ak vraiment artistes yi nga xamante ne ku ci benn Titi. Mm-hmm. ñoom ñëpp dinañ ñëw fi nga xamante ne man mira ñëpp ci biir ah mm-hmm. nee naa leen fële ca plage Obama dinañ fa ñëw waaye tamit tout à l'heure sachez que ñu ngi dem fi nga xamante ni mooy Thiès. di fa def un méga concert gratuit. pour sargal ki nga xamante ni mooy Alioune Mbaye Nder ak équipe bu euh, Prince Sarr bi yëpp. Mm-hmm. tout man ak Toch euh, dinañ doxantu ba daal di Thiès man ça fait du bien sax damaa bëgg a génn. gën naa génn ci région yi. surtout maa yéen a wax leen télévision Futurs Médias yemul Dakar rek. déedéet waa Thiès dañ bëggee. te bu dee dëgg la nan leen tase. waa Thiès pare nañ place de de France la ñuy daje tey concert dëbb ko ba mu mokk ba mu mokk fas yéene cee ànd xale yu terrible yi loolu dong nga ma ci metti ñoom Bintou Fofana Cheikh Sekal mi ngi ci boole loolu lu ma bu dee metti wu ma ndax ñun liñ doon dund rek dafa metti ah ku am Moustapha ci côté bi mm. am ndaxte mii mu mm. sikk mii ci coté bi am Bintou Fofana ci côté bi ah am ah, Mouhamed sama lakkal ñu jël Cheikh Secka ne ko sëpp si biir mm. ma mënoon nañu maa bàyyi rek ma toog kër non en dina neex dina yëngu mu mm. nekkoon final boo xamante ni comme ni ko booy woyee mm. verdict boo xam moom la xaar ba tey à chaque fois bu ñu ko jàppee rek ampleur bi yëngu gars yëngu ñu ne noonu nañ ko naj parce que eh xale yi la way du loolu lu ñu yàqamti mm-hmm. ñu leen di jox rendez-vous yéen ñëpp nag di leen wax ni ah. di ah. mm. ah, nga mën a ma di nga mën a ma di nga mën a ma moo ma ci rek non lii yóbbu leen ma ko TikTok yóbbu ko TikTok maa ngi télécharge léegi son bi ca Ndeye xaar ma TikTok nee naa leen lépp fii lañ koy waxtaanee fi nga xamante ne mooy émission 100 pour cent génne waaw pour convier di nga ñu ne ma ndax yow dañuy trahir dañuy la mën daal moo ne waay lii di nga ma nam dafa garaaw kii tamit kii dara la de. dañoo ànd ak dañoo ànd ak fekk cosaan bi ngi yaa ngi enjoy fële mais uh, vraiment ñu am plaisir si sa liste actuelle vraiment. seen bi ñun ñëpp enjoy nañ ko telement rythme bi tellement lyrics bi tellement. macha tout est nickel macha allah honneur aux dames on vous dit d' abord bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam Samira. ñu ngi leen di nuyu. Mhm. di vraiment. Mhm. kontaan trop ci invitation. macha allah vraiment un plaisir. Mhm. ñun ñoo gën a kontaan gisaat la tey nga defaat belli. macha allah dafa stylé suuri bi nice macha allah ñu bàyyi sa góor aussi ndax moom tamit ah, ah ah clip bi tamit neex na naqari lu ci benn yoon. yëpp la neex daa yokk kenn doo ah, ah man de kii la mu def fii. ñun moom biñ ko gisee. Ah. mosuñu ko woon xaaree ko de. déedéet man xaaruma woon foofu kon yéen li ma la la leen def. man man ko doon xaar. maa ngi ko doon xaar ci gars yu métti yooyu. waaw yu métti ñooñu nga xamante ni. <laughs> voilà ñoom bomb la ñuy bëgg. rappeurs yi xolofam la laal. ba pare xoolal yëngal ñu ñun ñëpp. waaye ci ginnaaw ñi nekk ci ginnaaw. saal bi yëpp ngeen tax feccikat yi ci ginnaaw maa ngi leen di nuyu ñoom bàyyi maa ngi leen di nuyu. <laughs> ñuy laal kii bi acca euh, ku baax ñu ngi lay nuyu bu baax a baax plaisir la ñu amaat. maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay maa ngi leen di ziar di leen màggal vraiment c'est un honneur pour nous aussi ñu ñëw ci plateau bi mm-hmm. mën naa wax ne c'est pas une première. sunu deuxième fois la. absolument voilà mais di leen màggal bu wër a wër a wër wër. di ngeen di ah, def nice na. la yéen ku ci nekk rek déjà bu taxawoon rek déjà plateau bi màggal ngeen ko yéeg na niveau. waaw di siyaar si star yëpp. ah mm-hmm. star yi ah Samira ah. <laughs> yéen ak ah, ak El Phénoméno. <laughs> ah Toch Phénoméno vraiment maa ngi leen di bëggee. Mm-hmm. di leen remercier aussi ci lii di màggal aussi lépp Eva aussi. Eva. waaw ndax lépp moom la daal. jàmbaar la jàmbaar la na ñu ñu jaarale suñu nuyoo eh. waaw ndax lépp coaching bi moom la. donc waaw donc ñu ngi koy bëggee bu wër a wër a wër. jaajëf jaajëf jaajëf macha allah. di leen wax ne nag yéen moom fii moom fi mën nañoo ne seen talent moo leen fi indi. ah waaw waaw la du déglu lii lii lu neex la. Mm-hmm. lii lu neex la loo xamante ne tey jii ku ko mën dégg man xam naa su paree lii ci laay yentu mais man sama question rek day dem maanaam couple la buy way voilà jali la jali bu ñuul la ak kii. wala les maabo la wala lan la ci wala les maabo am nga dëgg man question bi dama ko doon bëgg a laajte dama ko gisoon. xam nga la wala bu dee couple tamit sooful. li moo tax ci kër dina baax. am kenn cobraan waaw la. lu ngeen di nëbbatu wax leen nu ko. Oh. non couple la. Mm-hmm. c'est-à-dire référence yi ngeen jël. Mm-hmm. ñun romb nañ sax foofu. ah romb ngeen leen maabo romb ngeen jale bu ñuul ak. bu xees ak parce que ñuy def romb ngeen bay jay fay ak euh, ñaari groupe yooyu ngeen tudd yëpp ku ci nekk dañu am seen mm. seen i style quoi. Mm-hmm. ñun nag romb nañ foofu parce que xëy na déglu ngeen mbalax. mais dinañ def reggae dinañ afrobeat. Ah, dinañ euh, afro pulaar afro mandeng musique ah. Casamance.

lépp ma ci diisoo dama lay bàyyi. Eva amul nooto si suuf ku bëggante wu yaa ci erreur yi dafa neex. macha allah a wér. ah oui waaw ah, macha allah. c'est normal ah. mu jigéen bu mën góor. kan mooy bind ci yéen ñaar d'habitude. Ah? ñun ñaar ñëppay bind. dama doon bañ a yàq woy bi sax moo tax ma mënoon naa cee bañ a def dara sax. yaa mu woy ba mu jeex. waaw dëgg la de ku am nga fi nga mën dëgg la dëgg la de. mais macha allah am nga jabar bu jongomaat. macha allah stylé. ba pare mën a way. souriant macha allah yéen ñëpp am sa allure bopp. macha allah léegi connaissance bi a xoos yow euh, moo tax ngeen xamante wala da ngeen xamante ba biir àndandoo di musique. non non non non ñun dañu xamante bu yàgg suñu papa yi ñoo ñoo nekk ay ay xarit. ndeysaan ah. ñoom ñaa ñëpp ay enseignant lañu woon. Ah. d'accord yéen seen papa enseignant yi di jàngalante voilà te yàlla bizarrement di jàng suñu dëkkante fu sori. ah yéen itam soriwu leen woon soriwuñu woon suñu dëkkante Samira. voilà yow la laaj. dégg naa la dégg leen ko xanaa. et puis nag papa yi di jàngale. pourtant ñoom ñu ngi doon jàng ñoom ñu ngi si suuf di jàng. non non boobu ja ñu nekk ñu woon di jàng. loolu cours de renforcement la loolu mooy cours de renforcement. <laughs> ça ça et ça c'est bien renforcé. jërëjëf loolu xol sedd la en fait moom sama li ñu jëgante woon aussi moom. sama xaritu mag la woon. moom bi muy commencé rap moom ak sama mag ñoo commencé. Oh, voilà donc man nag yàgg naa bëgg mais boobu aw woon audace dugg ci. Mhm. Ah. bi ma nee sam papa dama bëgg def musique mais cukkeel lay àndal. moo may initié ci la ma nangu dem. ma def musique donc ci la ñu commencé di def musique ñun bu ñu marié wu c'est en 2020. te bi ñu commencé ànd mën naa la ne. du tey 26 ans 26 ans ngeen ànd doog a marié wu léegi 3 ans la kon xam nga ne. voilà amitié bu yàgg la. Mhm, xaritoo bu yàgg la mariage bu dëgg la. exactement voilà loolu la. vous avez pris le temps de vous connaître. tous les deux. loolu ni may dal dalu leen. man damay gis tey nopp tey. génn tey ñu divorcé tey. Demba Guissé Demba Guissé Demba Guissé kontaan na ci yéen ah. nee na macha allah très classique. Ah, Samira et son équipe mais Demba Guissé aussi mi ngi leen di bëgg bu baax. ma génn ma génn. cukkee la kii. tey soo ba tey amul la ñu dund. lii leen lañ ko may. ndeysaan yus bi lii nga wayal li. ndeysaan. kay nga jege ma. ndeysaan naa la sama xol bi. ndeysaan. lii su la doyul ndeysaan. kon moom. mu ne kon. lii laa amul sama àdduna amul aw ma ko aw ma sax. macha allah <laughs> neex na je disais tantôt euh, mi ñuy ah, suivre ah, et mi ngi di béggee bu baax a baax. Ah, euh, le couple ak la aussi mi ngi leen di béggee bu baax a baax Demba Guissé nekk koo xamante ne il est sans façon. su mhm. seetaan émission su gisee lu nice da koy wax. da koy wax il n'hésite comme ça télé bu ma taal rek bu ma gisee émission. je le dis ouvertement sama papa la sama lépp. et puis mi ngi di béggee euh, si Salisto ak Cukel. ngeen génnee son bi tukki il y a deux semaines de cela ko noonu lañ ko accueillir mhm. mais est-ce que tamit man li ma bëgg a xam mooy est-ce que yéen a ngi faral di jouer en mhm. c'est-à-dire ci resto yi wala ngeen di faral di jouer quelque part tous les parce que man ça me de sortir pour ñëw di leen déglu mhm. waaw déjà maa ngi remercier producteur clip bi mu nekk ba Canada États-Unis kooku the master la sunu gayen la. mu ah. tudd Omar Benba. Omar Benba waaw ay ay vraiment kaana bi. Mhm. maa ngi koy bëggee di ko siyaar bu wër a wër a wër. kaana bu mag a mag di siyaar waale day faatu aussi. <laughs> bon ñun ñu ngi joué tous les samedis depuis 2018 ñu ngi toog euh, fii implanté wu fii avant ça ñu ngi woon boori Cap Skirring di joué milieu hôtelier bar restaurant. ok mais 2018 lañ fi nekk dañ daan joué Calabas euh, Casino du Port. Mhm. dañ daan joué aussi Terra Nostra mais actuellement ñu ngi joué tous les samedis. viking moom daanaka sunu kër la depuis 2018 ñoo ngi fi. viking waaw ah, viking mu ngi ci yoonu ponti bi. Mhm. en face Alibaba wetu fast food Alibaba. xam naa fa man ponti min naa ko. foofu la 22h00 1h00. waaw ñu ngi koy def lu nice en formule acoustique. léeg-léeg nag ñu génn joué ji leneen du gën a yaatu. Mhm. mais bon a seeraan daal mën nañu ñëw di ñu xool. waaw mais sànq bu ñu ñëwaatee ci son bi am na benn refrain yow bi nga jël est-ce que mën nga ñu ko mayaat ñu xaw koo dégg bu baax parce que pour après. su ma koy challenge ma dégluwaat émission bi xam parole yi parce que mhm. loolu dafa garaaw. dama ne mhm. filmer leen. yóbbu leen ko TikTok. filmer leen yóbbu leen ko TikTok. Ndeye Fatou Ndiaye. koj ma tiktok ajal ma sa caméra te yóbbu ma tiktok su ma sañoon dootuma tukki ba yàgg fii nit demam la xam coobareem du yàgg fii chéri cag-cag ma ñëw mbaa nga fekk ma fii yal na yàlla def li gën amiin yaa rabbi ah, bi bu génnee fii kii génn allah euh, man moom franchement euh, ci li parce que xam naa ni que am na beneen variété comme vous l'avez dit tantôt. Mhm. et puis day neex nga gis couple nga couple ba pare dem seetaani couple loolu dara daax billaay kon man du ma mën couple dem. Hmm, non yow doo dem. mais single yi mën nañoo ñëw. individuel yi célibataire nañoo ñëw. bien sûr waaw on est invité kon. foofu milieu black and white la. jaxasoo loo jaxasoo waaw waaw ku ci nekk mën na ñëw et mhm. free la euh, mhm. donc. dangay ñëw rek nga cause. Mhm. am nga enjoy sound bu mhm. neex et mooy loolu. am nañu album bu ñu leen mën a découvrir eh, wala. pour le moment benn EP wala. pour le moment ci album international la ñuy liggéey. ok donc ñu ngi remercier waale sunu chef d' orchestre muy euh, Massamba Soumaré. vraiment moom mooy soli su Pape vraiment euh, ah. yàgg nañu liggéey depuis dix ans. Mhm. ñoo ngi ci li c'est vrai que Sénégal siw siw siw fi dafa metti mhm. mais ñoo ngi def lu nice yàlla xam na ko. Mhm. non waaw waaw donc ñu ngi moo xam ne lu baax la ñu ngi enregistré ndànk ndànk ñu ngi topp toqal rek. waaw pare ñu nag moo tax ñu jël ci benn cofal ko gars yi ñu enjoy ñu xool. comme ça là bon j'espère à travers ce morceau. dina am benn déclic. si suñu ah, carrière ah, incha allah déjà ni ñu ko consommé nii ndaxte xam nga ne bu ñu jógee fii bu yéen bu ngeen demee TikTok bu ngeen ko xoolee. di ngeen ko fa fekk parce que li ma wax ci rythme li ma wax ci lyrics. ah ba pare ngeen wax waxu TikTok. bu ngeen demee TikTok di ngeen ko fa fekk. yónnee naa leen ko ah, yow yónnee naa la ko yow it. gis naa ko gis naa ko aussi gis naa ko man ci wàññi nañu ko waaw jox ko ak ko sa WhatsApp. Euh, kii euh, si Salif Diop. on peut s'attendre à quelque chose très euh, bientôt ou bien. à part euh, tukki bi wala da ngeen def promo bi ba ci kanam. non dañu bëgg a def promo bi ba ci kanam. parce mhm. que vraiment dese nañ ñu xam biir Dakar. Mhm. tey boo demee Kolda moom boo taxawoon buntu garage laaj ñu. Ah, xale bu ndaw moo leen cee yóbbu la Kolda lañ dëkk. d'accord ñu foofu xam nañ ñu fa. parce que mhm. yàgg nañ fa. waaw Kolda ñooy rafetee nii sama. voilà dégg nga. garamaa <laughs> jégalu de. dëgg la kay soxna si rafet ah, a way. waaw waaw macha allah macha allah. xam nga jabar jàmbaram moom xam nañu mais dañu bëgg def promo Dakar d'abord. Mhm. mais am na lu bari lu nekk ci valise bi. yoo xam ne yebbeeguñ ko. waaw te dinañ ko yebb ndànk-ndànk. waaw am heureusement bu ngeen paree rek n'hésitez pas wala ngeen di jouer aussi. Euh, mhm. bu ngeen amee ay affiche yu ni mel rek. ngeen yónnee ko parce que ñun émission bi dañuy partager tout le activité artistes yi amuñu sélection amuñu kii euh, ñun ku indi rek. dañuy dañuy dañuy dañuy partager ça incha allah. màggal kii euh, aussi Bouba Ndour. Mhm. bon màggal déjà suñu papa euh, Youssou. vraiment mhm. icône la vraiment. dëgg la yaakaar bu nekk rek booy. booy rêvé guddi sax yaa euh, bëgg nga bëgg nga doon. ni moom référence de référence la quoi vraiment. Mm-hmm. donc euh, Bouba euh, Sala am na benn émission bi mu doon jàll déjà Superstar bi Pape Cissé organisé ah, woo. ay jamono bi doon jàll mm-hmm. RTS. je me rappelle moom demoon na ba demi-finale. moom ñoom Bas Endo et cetera ñu xeex ko. di bëggee aussi Bouba li waroon loolu parce que amoon na. benn dañ laa xeex naa ko. Bouba Ndour amoon na benn concours bi ñuy naan je xeex Sibiru. waaw waaw ak ñoom Fatou Demba Cissé la waaw et cetera et la région de Kolda aussi. waaw waaw ok final fii lañ ko defee woon. final lañ ko defee final lañ yaa leen mën compilation sax ba suñu son bi mu ngi ci. te te Sénégal wërngal këpp sax boo boo boo bàyyee xel sax son bi la ñu gën a utiliser ci campagne moustiquaire. ah mais. yàlla baax na xëy na Sénégal dinañ dégg dinañ ko gën a découvrir incha allah daf la wax ni concours yooyu yëpp dañ laa xeex il faut tenir il faut tenir le coup rek ça va venir nee nañ xëcc bu daggul euh, dina dikk mm. incha allah mm. il faut juste euh, y croire et puis ça va venir en tout cas ñun ñu ngi leen koy souhaiter bu baax a baax si vous avez un numéro à laisser mm-hmm. euh, pour les fans ou les gens qui veulent vous découvrir davantage mm-hmm. balaa ñoo joxe numéro bi man dama ko waaw waaw yow sax madame yow boo joxee numéro sax yow yar daal sa kaw mm-hmm. monsieur soo mënee joxe numéro bi man nag xam nga man moom su ma joxee sama numéro tamit day jafe torop pour ñu jot pour ñu jot voilà man moom je suis trop waañ waaw da ngay gérer monsieur non sama deuxième passion j'aime beaucoup la cuisine da ngay xool xam ne dafa mën a mbaxal wala da ngay xool xam ne kii mën naa lu bari nag <laughs> numéro 44. 44 yaa ngi a jóge nag. voilà bon je vous adore. mel nag damaa bëgg a waañ nag balaa may marié wu sax moom j'aime beaucoup la cuisine. waañeef na waaw damay nekk ci waañ après ça maa ngi je m'occupe de mon mhm. donc loolu moo tax aw ma trop temps di nekk ci téléphone bi. def ko un coucou comment il s'appelle. Barxaama. Barxaama Barxaama maa ngi lay nuyu. mais aussi voilà aussi di. nuyu sama yaay sama yaay Khadika di ko nuyu. daanu naa leen rek ah, ah, bi ñu am Kolda boo xam ne. Mm. fans club bu dynamique la chaque weeru koor dañuy def mm. ndogu. Mm-hmm. social waaw di ko yóbbu fu ne ñooñ aussi ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di def big aussi bu mag euh, préfet. préfet notre ami préfet chanteur ah le le petit frère de Dabi kooku sama xarit la sama chéri la maa ngi koy big up un grand big up à Baye moo doon toj fee ci waaw c'est mon ami koo koy sàll ngaari lam tooro bu baax big up maire Betty ah Fat Kiné yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu aussi waa Pikine bi ñu jógee Kolda waa Pikine nañu dagal ñooñu dalal ñu ngi jaay nuyu leen ma Baye Barxam bu baax a baax a baax moom suñu sëriñ la ko maa ngi ñaan bu baax a baax incha allah maanaam. macha allah moom la ñu yàlla may. nii la mën a mel moo tax gëmee yàlla may na leen lépp. yal na leen yàlla sàmm yàlla aar leen surtout et on vous souhaite euh, une très belle continuation sur ce que vous faites. Euh, restez avec nous nous allons découvrir euh, une page de pub. wala benn making of. Samira oui. on aimerait on souhaiterait rencontrer Ngone Ndour madame Ngone Ndour. ah waaw bëgg nañ ko mooy Bouba ñoom ñëpp daal vraiment parce que. tey boo boo waxee musique rek mhm. daanaka ñoom ngay joxoñ ñoom ñoo jiitu ñoo ne ci kanam eh, taal lamp yi dañoo bëgg lamp yi ñu taalee ñu ko ñu nit ndeysaan amul benn problème loolu amul benn problème da nga ni reste ak ñun peut-être su week-end start jeexee rek après euh, ma woo ko et puis on va essayer de voir comment on va faire pour les collaborations merci beaucoup euh, si Salisto ak euh, Thiogel ci li nga xamante ne mooy son tukki alors nous allons voir Adja Vaisselle Adja Moussering Fallou bi nga xamante ne chaque samedi matin mhm. moo ñuy taajal ay vaisselle yu ni mel exceptionnel. Ah. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du blanc doré, machallah, bien bien bien bien fait comme il faut. Man gis ngeen sama kii bi laa sama jus de citron ndaxte mi ngi ci bisaab sama chérie bi madame mi ngi ci jus d'orange tout comme monsieur Toch mi ci ngelaw li comme man Fapal <laughs> euh, mi ngi ci bisaab bi mais macha allah des vaisselles yoo xamante ni bu ngeen ko bëggee nee naa leen adresse bu baax bi comme j'ai l'habitude de dire ak li nga xamante ni mooy numéro bu baax bi comme ni ma leen koo tàmmee di jox waaye balaa boobu nañ dem xool li nga xamante ni moom la Adja Moussiri Fallou ak Abo suñu xarit chérie Ndeye Fatou dañu taajal chaque samedi let's go mayaat ma lii c'est magnifique mayaat ma ma xool ko du ma ci doyal mayaat ma ko beaucoup euh, Vieux Diouf euh, yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a féete xale. réalisation yaa ko man nag waaw waaw Eva Eva Eva Gomis réalisation Vieux Diouf moo ko mën kay. ma ko koy ñaan ma koy may ma ko koy ñaan ma koy may xoolal li muy zoom. ah Vieux Diouf dolli ma zoom le zoom de tonton Vieux. Vieux Diouf waat ma ci zoom bi. mënta ñàkk doyalu ma dolli waat ma ci zoom bi. Vieux Diouf mayaat ma lii. Pape Zama yow tey lañ lay jàpp wala ñu bàyyi la Pape Zama moom bañ ko bàyyee du tey. tonton Vieux yaa ngi gis bii table. <laughs> xam nga ko tegal. bu amul dara sax da ngay nekk si jàmm. da ngay mel ni yaa ngi Dubaay. kuñ ko tegal da ngay mel ni ku nekk àjjana. Mm. lii mel ni ay or xoola karaaf bi. ñu duyal la ci d'orange. mën nañ la ci defal bisaab baa buy baa kel bu fekkee da ngaa tooye. lii <laughs> loo bëgg rek. lii boo ko xeelalee sa jëkkër. waaye orange bi loo ko laajee 400000 mu envoyé la 400000. 400000 mm-hmm. euh, macha allah anytime yi da ngay gis léegi euh, mariage Zeyna bi. Mm-hmm. da ngay gis ñoom ñëpp vaisselle marocain la ñuy jël lii moom jël numéro bu gaaw xale yi ñuy takk ah préparé leen seen i vaisselle pour seen eh, kii. Euh, nu mu tudd sax enterrement vie de jeune fille. enterrement vie de jeune fille wala anytime wala. enterrement jeune fille yooyu mu ngi am. mi ngi am ba kay comme c'est un peu on peut pas. enterrement lu ñu invité ci fii lu tax la ci invité enterrement lu ci bi doon man de su may enterrement di bi muy bi bi muy dund ñun ñoo leen ko doon dundal kon bu dara desul dundal enterré mun ngeen ñoo bàyyi ñoo enterré leen wallaay dëgg la ah wala xam nga xam nga sànq bi may sànq bi may désamorcé tonton bi ambiance bi neex rek ak fecc <laughs> na aussi xam nga loolu enterrement vie de jeune ñun xam nañ ñu koy enterré ñun dañ koy suul moom suulu <laughs> lépp la <laughs> man ni nga may gisee nii de entraînement rek laay def. entraînement bii di doon gàttal rek la. xam nga lu ma lu ma gën a métti guddi yi mooy mag tos ñoo war a ànd ba Thiès. loolu <laughs> tos dawalul de man sama volant du ma ko jox ku ma wóolu. <laughs> cosaan fii ku fi eh. mën dawal ma dimbali. Eh, ba ma a ma ma tax a sama wet yow doo ma teel sama wet dama may ma bébi daawalal. yaa yore volant bi leen bébi daawalal. kon da ngay wàccee volant bi dawal xool day concentré woon. yow tos eh. xalaatuma koo jox sama volant oto ma kii parce que muy bandi day wàcc vite sax ñu naan. non buloo ah, moom mënu cee ñàkk su ma ñëwee ba romb péage ma foo jaar ma tegal la pop si moom. ayca wili wili boos si laa ko ah. yàlla yàlla ñu may yàlla may yoonu jaamu nee naa ko ndax ah, xam nga fi nga xamante ne place de France. waaw mu ne ma waa xam naa bu ñu réeree mag euh, Choupa la ñu daloon dañuy def vingt bu ñu bu ñu réeree waatee rek ngeen xam ne tos la yow man kay xalaatuma ko man fi mu toll nii Pape Jean Pape Jean yow xam nga place de France bi nekk Thiès yéen waa snap bi ah. Ah, yow après ñu Samira man Thiès laa yaroo dëgg maa ngi koñ waa Ersan Thank

Now you saved me from the naughty. I man and a woman of them dirty. Ancha muna manyot, ancha itele na mot. Oh, divine love. Buma la gisul won, duma yek. Suma la jotul won, dina rep. Fast la ma jondon, di ko yek. Gainde bu xiif lool, di ma rep. Buma la gisul won, duma yek. Suma la jotul Uniflow macha allah ma ci leen. kan la kon yéen yéen a baax. waaw li <laughs> gore. di wane lu baax. yaa def sa mu tagal la. waaw <laughs> ah, Samira di la wax ni ñu lay bàyyi nga nuyoo. xaw ma xam ngeen ko xaw ma xamoo leen ko mais dalal nañ daanaan bu mag a mag. waaw suñuy yàgg ci ñun ñu yàgg suivre game bi. Mm-hmm. kii c'est Sir Jamal. xam naa ko bu baax a baax a baax a baax. mu nekk ndaanaan boo xamante yàgg nañu bégal ci ay it. yu mel ni ay aaya wàcc na yooyu duñ ko mës a fàtte di la wax ni kontaan nañ bu baax a baax baax ci dalal suñu plateau dina wax ni namoon nañ la xam nañu yaa ñu raw waaye bi nga ñëwee tamit lépp lu ñu la namoon tey di <laughs> yëngal nga di kontaan bu baax a baax di la dalal ci plateau waaw ah, mais respect à vous hein, pour euh, cette invitation déjà mhm. maa ngi ziar ñëpp ñu ñu seetaan à travers euh, la TFM mhm. euh, et la diaspora adduna bi yëpp ñu ngi leen di ziar di wax ni xam ngeen fi am ngeen fi tey seen doom Sénégal muy sœur ou sir Jamal. Mhm. Hakan Jamal waaye comme ni ma ko waxee sama xarit Toch. la mhm. dernière fois dañ may woowee léegi nitu fii ak nitu fa. ak fa ñu jëm nitu fii ak fa ñu jëm. nitu fii ak fa ñu jëm. parce que. musique bi ñuy def. Mhm. musique ko àddina la certes. mais ñun dañu taamu ci suñu musique di jàngale. di jàngale parce que la musique elle doit être d'abord éducative. l'amour évidemment on ne ne pas le chanter. Mm-hmm. parce que yàlla sax ci mbëggeel la saxee àdduna bu namul woon ba wax kun àdduna du am dëgg la kon lépp fa la sosoo moo tax ñu taamu wéy mbëggeel bi mm-hmm. mais ñu tuddee son bi Gambian Goddess Gambian Goddess qui signifie ma déesse gambienne mm-hmm. une manière de glorifier la femme mais ah jeune non non parce que à travers Gambian Goddess da nga ci dégg Sénégalais Goddess mm. African Goddess American Goddess Asian Goddess donc euh, c'est une manière euh, de dire que la femme euh, dañ ko war a wormaal. Mm. jigéen parce que jigéen buñ ko bëggul. mooy àdduna sax. yàqu na defe na mbind mi. Mm. ak lu ñu yaatal tey. Mm-hmm. du am kon ci mbëggeel la lépp sosoo te dañu tamit magnifier l'amour entre sénégalais. et Gambie. parce que mbëggeel mm. Sénégal bi lañ ci dekki la di ci rendre hommage euh, quelqu'un qui a représenté la Sénégambie en chair et en os mooy Moussa Ngom. Moussa Ngom waaw très bien kooku da ko daan gis gis Sénégal ci benn parti jëmm ji. Mm-hmm. Gambie ci beneen parti jëmm ji. mu nekkoon ku koy symboliser mais mu doon indi tamit. l'unité entre les le Sénégal et la Gambie. Mm-hmm. unité boobu nag defe naa tey jot nañu yaatal ko muy ñu am unité africaine. Mm-hmm. une unité qui va peut-être faire décoller ce continent. Mm-hmm. et l'amener dans des dimensions yi nga xamante ni nous von après espérer rivaliser avec les autres continents parce que jot na nag Afrique wane boppam. waaw man damay naqaru saa su ne su ma gisee ay jeunes. Mhm. ñi nga xamante ne ñu ngi seen digg ndënd. Mhm. ak seen digg doole. Mhm. ñu jël gaal yi di bëgg a. espérer l' Eldorado ailleurs. suñu Eldorado fii lañ ko war a créer. dëgg ba bu ñu demee ba ba ñu dem ba tubaab yi sax. defe naa ñoo war a def sa voyage là pour venir. espérer quelque chose. la lépp nekk ak ça man nag euh, ci philosophie boobu laay doxee ci sama musique. Eh, ñu gëm ni tamit ni Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ni suñu borom may nañu comme ni ñu ko waxee sànq. Mm-hmm. la paix la stabilité. Mm-hmm. dëkk bi lu mu métti métti métti lu mu tar tar tar. da ngay gis mu mel ni ndox. lu ci mm-hmm. borom bi di wis. ndax am nañu ay ñaanu. kilifa mag yu baax ak kilifa yu baax yi nga xamante ni. bàyyi nañ ko fii te muy def saa su ne ay jeexintal si suñu ay ay ay ay euh, réalité mhm. waaw dem nañ fi ba dëkk bi war a tàkk mais da ngay gis saa su ne lépp day am dal mhm. am saafara donc euh, dañ ciy sant yàlla bu mais di wax ni loolu c'est un espoir que ça doit faire naître en Afrique waaw l'Afrique aujourd'hui est un continent bi nga xamante ni ne serait-ce qu'à travers euh, cette teranga sénégalaise mhm. peut vraiment espérer avoir euh, le meilleur ah, dans l'avenir donc euh, ñun ci ngëm-ngëm boobu lañ nekk di di rafetlu saa su ne daal ñu ngi invité ñu may temps de parole. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah yaa koy wane bu baax a baax ah, ndax. Euh, exactement porteur de voix exactement koy wane a baax. c'est très intéressant parce que man man li may miser wu tout le temps ci wàllum. son su ma koy déglu mooy xool richesse parole yi. Mhm. tout le temps moom laay wax tout le temps dama koy wax te du ma taay di ko wax. ndaxte parole que c' est très important. c' mën na neex mais lu constant lu fiy lu fiy toog lu fiy nekk. Mhm. loo xam ne du dee. parole yi thème bi parole bi moo la ci mën a dimbali. Mhm. parce que léegi kenn mënatul nax kenn. via les mën nga yeete. via les paroles mën nga dénoncer mën nga engagé. comme musique rek da engage engagé wala nga def. lu nekk mën mën na jeex xaj. absolument léegi man euh, li ñu bëggoon a xam rek mooy euh, grand bi. comme ni ko si waxee léegi. mu ngi wax say jaloore ah. ñu ngi bëgg a xam euh, ndax grand bi des fois da ngay def rap. wala mm-hmm. te wax. arène bi. R&B wala reggae reggae moom kay gis nañ ko léegi <laughs> ah macha ak nga wax ñu euh, depuis nga commencé carrière ba tey euh, je pense que bu may soo a démarrer sama carrière c'est après le bac à l'université bu may nekk ci université Cheikh Anta Diop ah euh, en 2004 2005 mooy cinq ñu la waxee jàngal dama commencé rek après ma commencé def ay featuring yu mag avec ah, Gaston Bandimay qui m'a récupéré pour Tengalore gis naa aussi waa 313. voilà donc 313 euh, euh, on a fait un projet ensemble. Mm -hmm. euh, donc parce que maa ngi évoluer certes en solo. mais je suis hmm. aussi dans un groupe qui s'appelle Force Sirmeuse. nous sommes trois artistes yi nga xamante ni nous ne faisons que dans l'art engagé. Mm -hmm. l'art engagé peut euh, c'est-à-dire euh, pas dans son entendement. galvaudé hein ah. parce que bu ñu waxee engagé rek gars yi dañuy jàpp ni. waaw ñu métti ñu kii non c' est vrai. nous faisons dans ça. nous faisons dans ça maanaam xamante ne teg nañ ci suñu ay gët. di gis ne lii dañ ko war a dénoncer. nous faisons dans ce rap contestataire. pour euh, revenir à ta question. Ah. nous faisons du hip hop. du R&B du dancehall et véritablement parfois même de la variété. cest à de chanter même euh, en trad. donc mais ah. kon mën nañ leen xaar mbalax mi. mbalax euh, pas tout à fait. peut-être que je peux poser sur un beat sur euh, un beat qui qui est comment dirais-je euh, comment ça s'appelle déjà avec du marimba. mais. tout en gardant mon style c'est-à-dire xam artiste bu ci nekk da am sa identité identité boobu boo ko exporté nga posé ko ci musique bu mu mënti doon en principe war na mën a dem donc loolu ça ne pose ça ne nous pose aucun problème ñu def featuring ak Youssou Ndour mm. wala def featuring ak euh, Wally Seck mm. wala quel que soit l'artiste euh, mbalax du Sénégal mm. c'est pas exclu mais nous garderons toujours cette ossature musicale bi nga xamante ni elle fait notre identité euh, l'autre chose que je Euh, nous sommes certes engagés au sens contestataire mais suñu engagement c'est aussi au sens citoyen maanaam di yee nit ñi ci ay valeurs yi nga xamante ni ñun société sénégalaise moom la ñu làmboo. dëgg la parce que amaana euh, ñu ngi koy wax fii sànq sax ci plateau bi. Mm-hmm. lu bëri tey si suñu société commencé na am jàngoro. da ngay gis ni mm-hmm. dafa commencé tumburanke muy ngor. Mm-hmm. muy kóllëre. muy euh, muy muy muy mbaax. njub yu bëri dafa commencé njub moom amatul moom. non njub am na fii moom ñëpp a dem. client yi bari ci réew mi. di nga am ba tey xanaa kay. wala euh, mi leen boose gëj naa gis ku jub man. Euh, waxtaan bi yaatu na trop mais euh, Sir Jamal. à part Pape Jean xaw a rek. mais li may gënal mooy li débat la thème la boo xamante ne ñun sax boobu nekkul mën nañ ko waxtaanee. waaye nag aussi ñu def ay direct que ça soit suñu ay réseaux sociaux pour véhiculer des messages. Mhm. parce que ni nga nekkee porteur de voix noonu la Torche nekkee porteur de voix. notamment ngeen war a mën a def ay direct pour sensibiliser la population. surtout surtout aussi nga nekk ki nga xamante ne mooy une personne. très engagé la tout simplement à part li nga xamante ne mooy son bi tey mhm. euh, ban euh, projet lañ mën a xaar si euh, ñu ngi dem ci benn concert à la MCU la maison des cultures urbaines de Wakam à mhm. côté du monument de la Renaissance mais en décembre aussi nous sortons notre second album Mind Change parce que nous, nous sommes dans l'optique de changer totalement les mentalités sénégalaises. Vraiment. Et c'est notre premier album Man Change qui a été très bien accueilli mhm. euh, au Sénégal. On a fait des tournées presque partout au Sénégal. Mhm. Maintenant, ça a aidé même à renverser, je le dire entre guillemets, l'ancien régime qui était là en place, en train, qui en train presque de, de, de, de, museler les Sénégalais. Mm Donc nous, a participé à renverser ce régime-là. Mm -hmm. on est fier euh, de, de, de porter ce combat d'une musique engagée bi nga xamante ni voilà on espère amener la musique sénégalaise dans les awards internationaux mmh. parce que parce que mmh. ah voilà voilà parce que kooku c'est notre référence d'ailleurs mmh. dañu teg suñu bët fu sori moo tax dañuy woy ci anglais dañuy woy ci soose dañuy woy ci français dañuy woy ci lépp en tant que professeur de philosophie parce que damay jàngale aussi donc euh, duñu duñu dañ ci def en sorte que musique sénégalaise au sens identitaire du terme mu nekk une musique qui va porter le combat de, du panafricanisme mais le combat d'une humanité mm-hmm. véritablement voilà. Euh, unique koo jàngal koo jàngal fii dina ko comprendre. exactement en tout cas merci beaucoup Cheikh Jamal. boo déggul mu euh, rabal la ni rek euh, ñun bëgg nañ la gisaat ah. que nga jaaraat ci plateau bi comme ça. parce que j'adore sa façon de penser. mindset bi mu am. tout simplement. alors très rapidement Choupa baal ñu ci waxtu wi. Mhm. xam nañ ne rendez-vous yi nag. foog ñu jox leen. ñun mhm. suñu rendez-vous mooy ñu ngi dem mhm. waaw mhm. waaw waaye joxeel. bi la Aïta Senghor. doon wax sànq doon naa ko jàllale. mi ngi am fële ca Grand Théâtre ah. tey la waaw Aïta Senghor mi ngi noonu ci affiche bi macha allah. rendez au Grand Théâtre ah. Ndiaye Coumba Rose entrée yaa ngi noonu muy 5000 francs 10 000 francs. tey nag euh, vraiment ku bëgg xool lan mooy art ak lan mooy musique da ngeen di dem tey ci grand théâtre ah, lépp foofu la mën a xewee beneen affiche bi bu jàllee Eva mhm. ma jël ñu def ko lu gaaw rek mhm. voilà Wally Balago Seck fële ca Vogue lay amalee xam nga moom rendez-vous des branchés la woote entre 5000 VIP 10 am table yoo xam ne sur réservation la Eva. te dañ koy gaawal rek lu munta ñàkk. voilà ak lu brique euh, pour une première fois entre 100 000 francs. Mhm. ñoo ko ñoo ko fële Samira jàppale ma ci. top fi nga xamante ne euh, des civilisations noires ci terrasse Agora bi entrée cent mille francs donc euh, à partir de 17h dimanche mm-hmm. malheureusement les gars je pourrais pas euh, parce que dama fekk sali mm-hmm. mais ñu subaa da dem raxas Carlo di day am fële ca Cogito ak ak waa Cogito Events fële ca mm-hmm. Playa tey la nag prévente yi disponible na nombre de place limitées la ñu wax c'est à partir de 21h beneen affiche bi bu pare Pape Diouf tey la anniversaire am nag vraiment da koy amale fële ca COP 21. Ah. donc ku bëgg euh, bëgg rek ak euh, fans euh, ak fans Pape yi ngeen dem foofu souhaité ko joyeux anniversaire. Mm-hmm. tey jox na leen rendez-vous xam naa nag tey COP 21 dina fees dell. Ah, entrée 10 000 VIP 15 000 la. fashion show. fashion show la voilà. fashion show. 26 juillet lay xew. Euh, uh-huh. mooy 26 voilà 26 juillet ak le 27 juillet. prévente yaa ngi nii 1500 mm-hmm. la. jour J 2000 VIP c'est 50 000 francs. Mm-hmm. feu de ah. joie en face Lorena ex ah, Lambaye. défilé suivi da xawaare la nag foyer des jeunes de Waxinaan. ah ça ça ça c'est mon ami mon frère mon jumeau. Mm-hmm. Komi euh, moom muy def spectacle bu mag boo xamante ni. ak ànd ceeg waa team Fippu. mu ngi xewee fële ca Bargny. samedi le 27 lay am daaw def nañ ko nag mu fees dell daaw cat bi rek moo nekkoon maanaam place bi dañoo ne maanaam xaju fa ren dañ ko gën a yaatal waa bari gi dañuy teel a génn waa dakaar Kër Massar Yëmbal Wakhinane ñëpp Sénégal seen doom moo leen jox rendez-vous samedi biir yi ñëw le 27 juillet ñun ñëpp ñu fa team Abba bi yëpp di ngeen ñu fa gis ñu ñëw fas yéene koo dëbb ba Kane Diallo fële ca COP 21 tey la tamit ah, euh, samedi le 10 août samedi le 10 août incha allah à partir de 22h Kane Diallo jox na la rendez-vous fële ca COP 21 la ah. terrasse bi COP 21 man nag maa fay xaar ndaxte nag loolu laa wax moom dinañ ko jàllalewaat euh,